الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ginnaaw loolu mbokk yi ngi namonte ak yéen di jégglu ci fan yi nga xam ne déggante wuñu waaye li ci ëpp du suñu coobare tey ñoo ngi jël nataij Fath Makk résultat yi nga xam ne moom moo aju woon ci xeex boobu xare boobu tudd Fathu Makka mooy keroog ba yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ubbi Makka xam ngeen ne Makka nekkoon na barab boo xam ne tata la bu dëgër këng nekk place boo xam ne bokkaalekat yi daanaka ci lañ daan organiser seeni réunion ñu leen di financer pour ñu mën a dal ci l'islam mbooleem gaa yi nga xam ne ay noon lañ màkka moo doon barab buñ daan dajee ci waa Quraysh pour songu lislaam looloo tax keroog ba ko yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ubbee mu nekk mbetteel ci ñoom xeet yu baree baree bari daal di daw dugg ci lislaam ndax xam nañ ne màkka day dootul nekk barab boo xam ne fala noon yi di làqatu di nëbbatu xam nañ ne jaamu xërëm jeex na ci kaw suuf keroog ba yonent bi ubbee màkk looloo tax mbokk yi bi loolu amee kaanat al qabail al arabiya giir yi nga xam ne ci giiru arab yi lañu bokk commencé organiser pour daal di dugg ci lislaam xeet yépp commencé dugg ginnaaw ba Makka daanoo ci loxo jullit yi Quraysh daal di dugg ci lislaam daal di tuub yeneen giir yi daal di koy commencé topp di feeñal seeni lislaam giir yi nga xam ne ñoo waroon Makka ba mu des ñaari famille famille arabe yépp dugg ci lislaam ba mu des ñaari giir mooy xeet wuñ naan Hawzan ak Thaqif ñaari giir yooyu lànk nañ ñoom ba ñu dugg ci lislaam ginnaaw ba yeneen xeet yi nangoo dugg waaye mbokk yi yonent alayhi salaatu wasalaam loolu freiné wu ko ndax comme yeneen xeet yaa ngi dugg rek ñaar ñii rek ñoo bañ yeneen xeet yi dugg nañ moom yonent waxu leen dara waaye bàyyi na leen xel ndax buñ doon lim xeet yi dugg ci lislaam nga xam ne joxe nañ seen bopp daal di yëgle ne ñoom dañuy tuub Xusayrin ibnu Kaab giir googu dugg nañ ak Bahala ak Saalabiya ak Sada Bani Asad giir yi yépp nangu nañoo dugg wuyu si yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wassalaam ëpp nañ ko sax yu bare bare la ñoom ñëpp nangu nañoo wuyu si yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam dugg ci lislaam waaye ñee lànk dëgër bopp mooy ñaari giir yi ñu leen waxoon léegi waaye giir yee ñu ñëw rek yonent bi ab secte leen dugal leen ci lislaam am na fa benn giir sax giir yooyu nga xam ne dañoo ñëwoon tuub waaye ñoom dañoo indil yonent bi charte waaye yonent bi lànkal leen ko bi ko yonent bi lànkee seen charte boobu ñu daal di mujj tuub sans condition amul benn charte ndax ñoom seen giir giir bu amoon doole la looloo tax ñu bëgg a conditionné yonent bi yonent bi ne leen amul condition ñu daal di tuub joxe seen bopp daal di dugg ci lislaam mooy waa Hawazan ba ñu duggee yonent bi nangul leen ko loolu benn la ci résultat yi nga xam ne résultat wu ubbi màkka mooy màkka daanu yeneen giir yëpp daal di dugg ci lislaam ñaareel bi mooy maarikatu Hunayn ginnaaw ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam ubbee màkka ci ñaar fukki fan ci weeru koor moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk na fa lu tolloog ñaari semaine di organiser ak di defar di defaraat dëkk bi keroog la ñu woote aji woote daal di woote ne man kaana fi baytihi sanam fal yuksirhu képp koo xam ne ci biir këram de ab xërëm a nga fa nekkoon na ko toj gaa yi commencé daaneel xërëm yi ci seen biir néeg yi seen biir kër yi ndeysaan waaye amoon na fa benn mbooloo boo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo leen organisé di leen yónni wa baasa jamaa ila manatiq al mujawira li makka li taxtimi ma kaana fiha min maabidi l asnaami bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam organisé na benn mbooloo mbooloo moo xam ne luy seen taxawaay ak seen liggéey ak seen métier mooy wër li wër màkka yépp dëkk-dëkkaat yi gox yi fépp fu ñu tabaxoon kër wala néeg bu ñuy jaamoo xërëm yonent bi alayhi salaatu wasalaam jox ndigal mbooloo moomu bu ñu fekkee néeg boobu wala kër googu nañ ko daaneel mbokk yi gaa yooyu daa di toog diir fa leen yonent bi alayhi salaatu wasalaam yónneen ci jamono jooju ñu daaneel ci lu bare bare bare ci ay kër ak ay néeg màbb bépp barab boo xam ne dañ fa doon bokkaale yàlla tabaraka wa taala xamal leen ne bokkaale jeex na ci màkk ak li ko wër kenn dootu fi bokkaale yàlla waaye am na ñaari giir yoo xam ne ñoom ba ñu yégee loolu fittéerlu nañ ci kanamu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ñoom seeni xërëm kenn du ko toj yonent bi jox xabaar bi ne anna qabilatu hawazan axasat tuiddu juyuus wa tusaaniduha fi dalika qabailul saqiif wa nasr wa jasam waa Hawazan ba ñu féttérloo ne ñoom du ñu tëj seeni xërëm ñu ngay préparé armée pour dal ci kaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam ay yeneen xeet di leen ci jàppale mooy saqiif ak nasr ak jasam di leen ci jàppale ak saad ibnu bakra ak taifa min al qabail min qabila bani hilal bi qiyaadati Malik ibnu Awf xeet yi yëpp nga xam ne jóg nañ benn xeet bi sax seen njiit mu ngi tudd Malik ibnu Awf ñoom ñëpp jóg ne dañuy songi yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi qasdi hujum ala Makka nañ dem songi Makka comme fa la yonent bi nekk kaana haazal xabar mbokk yi xabaar boobu ba mu nekkee lu wér yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di koy jot yonent bi préparé na moom it ci ko yàlla mayoon ci doole ci kàttan pour défendre Makka pour balaa gaay di delloo siwaat xërëm yi fa baasa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man yasta man yastatallau lahu al axbaar xufiya ent bi ba mu yégee ne gaa yaa ngay préparé jógul rek dal seen kaw waaye dafa yónni kenn ci soldaaram yi mu yar ne ko demal nga utal may information ndax loolu dëgg la ndax gaa yi dañuy waaj pour dal sama kaw dañuy waaj ngir delloosiwaat xërëm yi ci seeni place xabaar boo am rek nag moo ko indil man yonent bi fa anjazal mabuusu alhimma ki ñu yónni woon daal di jox mbir mi yitte jox ko gëdd ndax yonent bee ko yónni mu dem ba mu leer ko wata bayyana lahu sidqu xabar mu dem ba mu leer ko ne xabaar bi dëgg la yonent bi alayhi salaatu wassalaam li mu foogoon looloo am mu daal di delluwaat jox ko xabaar bi ca jamono yooyu fa qarara nabi sallallahu alayhi wa sallam an yatasarrafa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam préparé nag ne dinaa soppi ci ñoom wifqan li uslubihi l askari comme ñoom loolu ñu foog lu ñu préparé naa préparé lu mel noonu seen kaw fa yaaxuzu bi zimaami l mubaadara wala yatruk lil aduwi fursa al hujum comme dañoo bëggoon war bett ma yëfi yàlla yëgal na ma ko dan ma naroon bett maa leen di bett duma leen may benn temps bu nu noyyi di préparé ndeysaan yonent bi alayhi salaatu wasalaam noonu la leen songee préparé seen kaw ci armée boo xam ne isna asara alf la fukki junni ak ñaar soldaar la asara alaaf min ashaabihi allazina xaraju maahu fukki junni rek ci sahaaba mi la bokk ñooñu nga xam ne ñoo génnoon ak moom depuis fatfu mag ca la leen yàlla dimbali ñu daal di ubbi màkk ak li wër màkk yépp daal di tuubloo gaaya yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla may ko ndam ci seen kaw ndax yonent yàlla ko yónni jamono bu nekk ndimbal yàlla tabaraka wa taala day ànd ak moom mbokk yi loolu bokk na ci résultat wu fatxu mag mu ne ginnaaw loolu bokk na ci ba tey xeex booba mu déparé ci jullit ñi gañe bu ñu gañe loolu lim lay jàngal mooy jullit yi saa yu ñu ànd ak ndimbal yàlla tabaraka wa taala nga ñaay day nekk seen loxo waaye bu ñu xëccoo poñetu àdduna rek yàlla won leen boppam génne loxom ci seeni mbir seeni noon dal seen kaw daal leen di gañe yonent bi alayhi salaatu wasalaam daaneel na bépp xërëm bu nekkoon ci biir màkk xoon nañ dar si passé kaaba gi amoon na ñetti téeméeri yàlla fukk ak ñett yonent bi daaneel na ko la waroon màkka yonent bi daaneel xërëm ya néeg yañ doon tabax ay xërëm nekk fa mu nekkoon ay néegi bokkaale in daan mooye yàlla tabaraka wa taala yonent bi alayhi salaatu wasalaam joxe na ndigal nañu màbb néeg yooyu màbb kër yooyu ba li wër màkka ak màkka kenn dootu fa bokkaale kenn dootu fa jaamu xërëm ndax xam ngeen ne jaamu xërëm te mooy ay estati ak lu mel ni ñoom cosaan la ci lu doomu aadama daan topp guddeeg bëccëg waaye dafa juuyoog lislaam lislaam du ci d'accord loolu moo tax mbooleem estati yonte bi keroog tere ko lépp luy niroog bokkaale lépp lu niroo xeet boo xamante ne lu ñu samp la wala lu ñu yet wala lu ñuy nataal wala wala yonent bi alayhi salaatu wasalaam tere ko ne lu ngeen ci fekk mu taxaw daaneel leen luñ ci samp sempi leen luñ ci daaj dajji leen luñ ci tawax toj leen ko lu ci nekk bant taal leen ko sahaaba yi ak mbooloo moom nga xam ne ñoom la yonent bi joxoon liggéey boobu taxaw nañ ci taxawu mat bàyyiwuñ ci lenn lépp lu nu fekkoon muy xërëm lu samp sempi nañ ko lépp lu ñu daajoon wekki nañ ko lépp luñ ci tabaxoon dammata nañ ko toj ko ba mu mokk rumbux ba nga xam ne yàlla rek subhaanahu wa taala mooy des ki ñuy jaamu waaye kenn doot fi jaam xërëm xabaar boobu bi mu tasee ñeneen ñi desoon ci ay jiir dawati nañ songu lislaam xam ne daal lii dëgg la waa ji nga xam ne ba mu tàmbalee ba léegi ndam rek ci kaw ndam dëgg dëgg dëgg kii yàlla ànd ak moom dëgg dëgg dëgg kii li mu nekk dëgg la moo tax ñoom ñoom ñu fàq yàllaa ko waxoon ne bis boo toogee ba nga ubbi màkk di nga gis sama ndimbal ak sama kàttan ni muy feeñe ci yow iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'ayta an-naasa yadxuuna fi diinillahi afaaja maa ngi lay yëgal ne yow sama yonent bis bu ma la dimbalee ba nga ubbi màkk ba nga daaneel xërëm yi ba lépp mujj nekk yàlla kese dara amatul kenn bokkaaletul di nga gis ñépp fax daw dugg ci diine yàlla ji waraayta naasa di nga gis nit ñi yadxuluuna ñuy dugg fii diinillaahi ci diine yàlla afaaja nekk ay mbooloo mbooloo moo tax yonente alayhi salaatu wasalaam gis na mbooloo ya ñu bàyyi ko fu nekk penkook sow gànnaar ak bëj gànnaar di wuy si yoo woote yonente alayhi salaatu wasalaam yàlla waxoon na ko nag soo gisee loolu bul deñ di sant sa boroom fa sabbih bi hamdi rabbika del sabal di subhaan di tudd sa boroom di ko bàkk di ko kañ ndax mooy ki la defal xéewal mooy ki la may taraanga nga gis lislaam ak lu dul lislaam lu dul lislaam nit boo amee ndam day zibile dajale ay tuq si ngalam ak sawaram di tëgg di fecc ak di wane dooleem ak kàttanam ak soldaaram ak armeem amma lislaam bu la yàlla mayee ndam yow yonent na nga xam ne du yow waaye yàlla la fa sabbih bi hamdi rabbik na nga sabaal di sant sa boroom ndax sa boroom moom moo la defal tawfiix moo la defal xéewal du keneen te dana njàng ci fatu mag ku am ndam da nga war a sant sa boroom xam ne du sa doole du sa mën-mën du say kàttan du say pexe waaye yàlla la kon ku am taraanga yàlla nga war a sant dana njàng ci fatxu Makka sant yàlla ndax yàlla waxoon na ko ne boo gisee mbooloo yi di dugg ci diine santal gërëmal bàkkal yàlla tabaraka wa taala xam ne yàlla la du keneen loolu moo tax mbokk jullit yi fatxu Makka nekkoon xew-xew bu rëy ci yonent bi àll sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo tax bi ko yàlla wonee xéewal yooyu may ko taraanga yooyu moom yonent alayhi salaatu wasalaam delloo na ko yàlla ci di ko sant ci di ko bàkk di ko kañ guddi ak bëccëg ndax yàlla loolu la ko waxoon waxoon na ko ne bul waru ci jullit yu bari yi la topp ak say soldaar ak say paxe bul laa nuxlibul yawma min qilla bu leen yaakaar mukk yàlla dina leen may ndam ci bariwaay wala ak tuutiwaay waaye na ngeen xam ne yàllaa ngi leen di may ndam feek yéen a ngi koy delloo njukkal feek yéen a ngi jaar ci yoon wi mu leen sant moo tax yàlla bi mu ko mayee ndam moom yonent alayhi salaatu wasalaam delloo na yàlla loolu yàlla may ko kon mbokki jullit yi nanu xam ne loolu mooy fatxu mag résultat yi ñoo ngoog mooy nataay ji yàlla dimbali na yonent ubbi na mag xeet yépp mobilisé nañ di tuub waaye yàlla waxoon na ko ne ko su ma ubbee mag di nga gis nit ñëpp daw di dugg yonent bi daal ci occasion wu daal di daaneel mag kaaba geeg li ko wër ak gox goxaadi lépp lu wër màkka ñu raxas ko ba mu set ci ay xërëm yu fa nekkoon ay barab yu ñu doon bokkaale ay néeg lépp lu ñu sampoon ci xërëm wala ñu daajoon ko wala ñu wékk ko yonent bi joxe ndigal ñu dindi ko waaye yonent alayhi salaatu wasalaam yàlla joxoon na ko ndigal ne ko saa yoo gisee loolu li war ci yow kat mooy nga sant yàlla tabaraka wa taala xam ne moom dong lañu war a sant moo tax moom yonent alayhi salaatu wasalaam delloo na yàlla loolu di ko sant di ko bàkk ndax yàllaa ko waxoon kon loolu mbokk yi moom mooy résultat yi ñuy jëlee ci fatxu mag ñu ñaan buur yàlla tabaraka wa taala mu jéggal ñu njuumte yi daan ñuy defal dégg ak topp ñu jéggal sunu boroom di ko ñaan moom yàlla tabaraka wa taala mu nangul ñu sellal sunuy jëf incha allah ñuy ñaanaat yàlla dajal lañ waat ñu ci waxtu wii ci dimanche bii di ñëw incha allah bismillah assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu assalaamu aleykum wa rahmatullahi